بيسوس أمة خير مرسلين عن الذين كفروا بالرسل قد لهم نصرا عزيزا عاجلا وبشرا هم عاجلا وآجلا قد لسوي الإيمان ما يزيد حبك يا من عنده مزيد أغني سوي الإسلام عن الركون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 najiituka al-yawma wa amsi raajiya waaw kon ñu ngi ci wàllu xéewal yi nga xamante ne ndigal la ci sëñ Xaadim Fay am di ko defal baayam ren daaw ñu def ko muy juróom-ñaari ndab ren mu yokk ko muy juróom-ñett ndab kon tey mbooloo maa ngi nii di àndandoo nag di yóbbu xéewal yi nga xamante ne ñu ngi koy yóbbul baayam Baye Thierno fay Fetto nga gis niñ ko yenoo nii sëñ Xaadim a ngi yenu sëñ am sa mu sëñ Muntaxa Jaxate mu ngi yenu la ah! la la eh, la ilaha la la Hey! sëriñ bi nee na asalaamualeykum. nee na mbokk yi moo ngi leen di nuyu. ci wàllug taalibe. ci wàllug taalibe. akub lislaam. akub diine. nee na loolu mu ngi leen ciy nuyu. moom ngeen ko dikkal mu ngi leen di ndokkeel. te di leen dalal. yàlla mi nga xam ne mooñu ñu booleeg moom. yàlla na nangu jëf ji. seen itte yi ngeen bàyyi ak seeni soxla yi jóg ngir yàlla ak yonent bi ak seexul xadiim ak borom daaru mussi ak borom fetto mii tey mu ne yooyu yal na yàlla nangu seen jëf sunu borom boole ñu si ca saxaaba yu njëkk ya ñu bokk ci ñoom wala ñu ëppale leen ndax Serigne Touba nee na. jàll na ne ay taalibeem. ba ñu weesu saxaaba yi. bu wutu malaaka ya. seneen suñu borom ne ko. jox leen ab ñam. akub naan. ay mbindeef lañ du ñu ay malayka Serigne Touba daal di gaawantu lañ njëkk a def ca Touba Mbàkke mu daal di yóotu ab xaaran xaaran lekk leen te naan loolee Serigne Touba nee na dafa bëggoon a jàllale ay taalibeem ba ñu weesu saxaaba yi wuti malaaka yi mu xarabiina yi léegi nag tey jii tey jii. loolee lañ taxawoo. loolee lañu taxawoo. moom lañ takku jébbalu. moom lañ takku jébbalu. fexe ba mel ni saxaaba yooya. fexe ba mel ni saxaaba yooya. nee na sëñ xaadim mii nag. takku na jëm ci man. takku na jëm ci moom. ak sëriñam bi fi jóge léegi. ak sëriñam bi fi jóge léegi. loolu la takku. loolu la takku. te it ba mu juddoo ba tey. te ci loolu la nekk. ci loolu la nekk. ba mu xàmmeeku ba léegi bu ko joxoñee la ko tere mu ba ko ba léegi lu mu am boo xemmem ko moom la ko yéene kon mu ngi koy ñaanal ak yéen ñi ànd ak moom ak yéen ñi bokk ak moom sunu borom faj seen aajo tey ak ëllëg allaaxira ak àdduna gii ñu nekk nee na jërë ngeen jëf mbokk yi ni ko sëriñ bi waxee moo ngi leen di sant moo ngi leen di gërëm yéen ñi laxasaayu ànd ak jëwrinam ji ndax sëriñ Xaadim mboolem njaboot gi mu bokkal sëriñ bi kenn ku ci nekk mat na ci moom seede sëriñ bi dafa wax ni maanaam jëf ji dafa doon jëf joo xam ne du guléet ndax ni mu ko waxee lépp lu mu mës a xemem ba jàpp ne jekk na na ko maamam Cheikh Mamadou fay fettoo daan defee ndax pakk bi lépp lu fi waaye mës indi mu baax sëriñ bi danaan cerno rek duma fi nekk dara di taxaw muy taax wala muy lu jekk lépp lu baax nañ jot cerno nee na noonu yi la def ci jëmmam ji lépp lu mu xemem ba jàpp ne lu baax la jëmmam ji la ko yéene noonu yi lay doxee ba mu xàmmee ba fi mu ne noonu la ko sëriñ bi waxee loolu nag kenn ku ci nekk mat na ci seede doy na ci sëkk daara jee nga xam ne fa la waajalee xéewal yii bi ko sëriñ bi joxee ndigal mu sañ ci daara jooju ak léegi waxtu wu nekk lay yitteem mooy bëgguk sëriñ bi muy na na ko na ko jëmmal mu nekk daara joo xam ne jàngale yar tarbiya ak di berndeel jaami yàlla yi nga xam ne dañu ko yittewoo loole nag bokk na ci jëf ji nii la ko defee woon daw bi ñu ci yeggee mu jaayante lépp lu di bernde luy jagal màggal gi lu koy baaxal loo xam ne bu ko wàccee ci kër gi rek tàmbalee ko ci baas yi leen tiim lépp lu ngeen gis loo xam ne bu ko wàccee ci kër gi dana jag du ca xar kenn te noonu la koy defee mu di gàtt mu di ginaar mu di nag lu mu mën a doon mu fas ko yéenee daganal daal di koy lewetal fas ko yéene jébbal sëriñ bi loolu mooy ñam yi mooy li ñu gis mooy li ñu gisut loolu yi nag tax na ba sëriñ bi mi ngi koy sant di ko gërëm mboolem ay magam muy sëriñ xaadim mi nga xam ne daa génn léegi ci ay yitte yu mu demal sëriñ bi moo waroon a toog fii jottali kàddu yi mbooleem ay magam ak yi rakkam doom ak jarbaat ñëpp maase nañu gërëm sant te itam ñëpp di roy ci moom ndax itte ju kawe ju muy doxee loolu nag moom la sëriñ bi xamle léegi ni mu laxasaayoo doon ab Baay Faal di tegtaloo Lamp Fay maamam Cheikh Mamadou Fay loolu yi la leen sëñ bi leeral kon képp ku laxasaayu ànd ak moom ni ko sëriñ bi waxee woon daaw na la wóor ne moom nga ko defal te yaa ngi ci gannaawam te lépp lu ko waay jox wala lu waay jëmale ci moom na leen bér ne mooy mooy sëriñ bi dara am tagut lépp lu waay jëmee ci moom rek na ko borom daaru moxti waxee woon mm, rakki Cheikh du Fay ja sëriñ du Fay dafa yóbbu rakkam ji ñuy wax sëriñ Modou Fay koro muy jébbalu ci borom daaru mu ne ko Fay mu ne ko mu ne ko sa baay de wër bi Modou mu mag sa bàyyi day wurut yonent bi daat ne Modou Faye mu ne ko Mbàkke mu ne ko boole naa la ak Serigne Cheikh Modou Faye mii lépp loo ko jox fépp foo jëm lépp loo yëkkati jëmee ci moom dara du tak lu jaar ci moom dana yegg si fi man sëriñ bi lu jaar ci sëñ xaadim yegg ci moom lu ngeen yëg ak lu ngeen yëgut jënd yitte laam jënd bëgg laam muy lu neex sëriñ bi kon nag seriñ baa ngi koy ñaanal di ko sant tey ñaan di ñaan yéen ñi ànd ak moom yàlla gën leen a dëgëral ngeen gën a yàgg ci gannaawam te ngeen gën a laxasaayu te xam ne day xanaa lu ngeen bëggut waaye lu ngeen dëgmal da ngeen ci jot asalaamaaleykum jërëjëf ñu ngi jégguluwaat bu baax ci kàddu yi sëriñ xaadim it mën naa jotale ay kàddu yu jege ci moom jëm ci sëriñ bi muy mbooloo mii nga xam ne ànd nañoo ak sëñ xaadim fay fetto muy tey mën nañ cee présenté ku mel ni sëriñ saaliw jaxate di doomu sëriñ amsatu jaxate mu sëñ amsatu di doomu sëñ muntaxaa jaxate mu sëñ amsatu jaxate sëriñ amsatu jaxate mu sëñ mun taxaa jaxate mu sëñ amsatu jaxate ànd na ak sëñ xaadim ci lii nga xam ne jëf ñii mu ngi koy jëf sëriñ Abdourahmane Fall mu sëñ Modou Mbenda Fall jóge moomit it ba Kaolack jaar ci ki ànd ak mbooloo mu takku moomit ñëw ngir jëf ji xaadim jëf mu ànd ci ak moom ku ci mel ni sëñ Mayib nga xamante ne moom fépp foo xamante ne lu sëñ xaadim wax rek moom danaan ko man duma xaar ku ma ci yëgal mbooleem mi mbooloo mi jóge Kaolack moom bokk na ci ñi ko jiite ak sëñ Alaaji Biyaay kon loolu yi tamit sëñ bi ñu ngi lay seddal ne sëñ xaadim ànd naag mbooloo mu takku moo xamante ne jóge nañ kawlax am wëllëranteeg moom am yéene ci moom mu ànd ak ñoom ci jëf ju baax comme ni nga ko waxee démb ci guddi rek danga ne sëñ xaadim day lépp lu xemmem ne man bëgg naa ko rek mu nga ca jëf jooju nag moo ko fekk si moo tax mbooloo mii ku ci ne bàyyi sa yite yëpp ñëw ànd kook moom ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm di la di ñaan nag nga ñaanal ko suñu borom kàttanal ko ren juróom ñaar la defoon daaw ren def na juróom-ñett ñaanal ko suñu borom yokk ko te barkeel ko ci barkeb Serigne Touba jëfu ci lenn lu dul lu lu jëm ci ngistal nag da koo jëf ngir ndigal kon ñu ngi lay seedal di ñaan nag ay ati at ñu fekk la fi yow yi tamit di ko fi indi di la ko fekk ci barkeb Serigne Touba ñu ngi jéggulu bu baax nag ci kàddu yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu Baye ñu ngi leen di siyaar baax sëñ bi fay di siyaare képp ku fi teew di ndokkeel sunu yaay xooja njaay me di sant itam ci ñëpp ñu nga xam ne ñu ngi ci kër gi lii ñu ci jot a wax ci wet googu loolu duñ ci wax dara ñun wet gi ñuy wax mooy sëñ Thierno Faye ñun gëm nañ ne yaa fi sëñ Modou Faye dañoo bëgg lépp loo xam ne jëf dana ko tax a am sëñ Xaadim màng ko ci jëfam yi ni nga xamante ne doom mooy tax duñ fàtte maam yàlla buñ fàtte mukk sëñ Modou Faye te jaar ko ci sëñ Xaadim loolu mooy kàddu yi ci doon wax jërëjëf. doon ko bu ko defee dañuy ànd ak yéen ñëpp bokki taalibe yi mboolem buntu kër Cheikh du fay yi ñu yóbbul leen seenub añ bu ko defee buntu kër sëriñ Touba fay la ñuy njëkkee mi nga xam ne mooy taawu Cheikh Mamadou Faye ba ci caatum Cheikh Mamadou Faye di Serigne Dame Faye muy sëñ doo Balla waaw ah, muy kër di kër Serigne Bachirou eh, ak mboolem njaboot gi rek yëpp mm, ñu defee ko noonu bu defee dañuy dem ci sëñ Samsu kër sëñ Samsu mu mag kër sëñ Samsu mu ndaw eh, muy kër sëñ Touba Faye eh, kër Serigne Ibrahima Faye kër Serigne Bachirou ba kër buntu kër yëpp mat incha allah bu defee kon sëñ Ibrahima bu defee ñu defee ko noonu. ba am ko la liggéey kër Thierno ba am ko léegi la ñu sën sën suñu di nekk loolu garaaw ne daa am ku feebar ca ca Mbàkke Kajoor borom daaru ñu ne ñëw ñëw ñëw na faj ko bi waree faj ba xaaj la koy nelaw dikkal si biir nelaw lañ ko boo demee ngeen ko ay sangam ay sangam boo ko bindee mu wér mu demaat mu desu amaat ku feebaraat mu ne ko ah, demal faj ko mu dem faj ko way juróom ñëw ne ko nag lii daa teg si moom bëgg mu bàyyi ko mu ne ko kii kii fajkatu fa faj fajkatu aaj rek te day faj rek ba kenn ñëpp wér suñu mën fay fekk man mii nag moom mii nag la waxoon nag nag bàyyi Cheikh Awa Balla daa jaay bàyyi mbay sam bi jënd ku wér di ma fëgg rek ceer na wax ah <laughs> barki borom tubaab <laughs> wali qadayta doona shakkin haajiya asil ummati nabi ahmada مصليا عليه في من حمدا نظرا عسيسا يصمل الكبارا ما أزقار لهم من بارا نظرا yéen ci wajuram yéen ko sëriñ yàlla gën na mu jiyéen bu baax a baax dama koy ne yow waxuma daal ni fi nute nga teg sëriñ bi kon waroon yor sëriñ bi waroon taxaw ci moom nekk ci wetam loolu nga defal na ko loolu daal su suñu xol kon na nga ko ñaan su moom yollu baax a baax su gudda ak fanam te wér yàlla bi yokk lool te suñu wàjjur moom suñu borom yàggal ak ba ca kanama kanam bu ñu ko weere ko weere nan ko yàlla mën na ko yàlla mën ko defal barke sew xadde yàggal fi taal bi yëpp yéen ak yéen kenn ku ne la nga bëgg yéen ko moom yàggal na ko bëgg barke borom daal waaw jërëjëf malun kibaara maa si qaari rullum mambaara sunil hadisa wal furuha kal kitab عن الذي نمتنا من المتاب رافع برفع الكتاب والفروع مع الأديس عيسى برو أعطيتني الجميع دون صلبي ولي تقود سهل وقت طلبي لأوصل الذي أريد أنفعي بي الورى يا مخليا أن مدفعي ما قصد در لي بالمنتقى وقلت لي ما ودوس والتقى وجعت لي ما لا يزال حجبا لول صح wax yàlla moom amuñu ak ndax yàgg fii sunuñ la ñun ñun saa suñ yàlla ak liggéey baax a baax a baax kon daal moom dañ koy def daal moom dañ koy mu yàgg fi te wér waaw waaw wax na ndax lii moom wax yàlla lu rëy la ñun ñii lii nii ñun ñii la waroon di di toog di ko jox di ko jox addiya ñun ñii la war bu defee lii nag wax dëgg yàlla moom dañ sant baax waaw di ko ñaanal daal mu yàgg fi tëwër daal loolu daal lan koy ñaanal waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw sant nañ bu baax أهلنا رزق وتوفيق يا الله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أبن كما على آخر ستر أبن ستر على آخر ستر بارك الكرم الكرم يوم يلجيكم يوم يلجيكم اللهم صل على سيدنا محمد في أبد لصالح نمن جبار مدد لي مدد من لا يخفى عليه شيء جد لي بالأخفاء نفيت كل من قلاني فهراب لما يسوءه دوام سكراب يا الله يا رحمن يا بصير قادر يا رحيم يا نسير نجيت من بيتعلق مان fii dañ dara waaye moom lañ fi dalal kon moom ñu ko fi dalal ba nag mu fekk ñu fi añ yi fàttewuñ kon bu baax ki nga xam ni itam mooy def lii daf di jàppale sëriñ bi ci gan ñi te muy mbokk suñu doom di fi lépp ñu ngi ñaan yàlla dëgëral taxawaayam te àggale yéen ñi ak yéene jullit yëpp ba ci yéen ñi indi ak ñun ñi koy xéewlu kon ñu ne ko yàgg ci suñu kanam ay wéram dolli ko moom ko xam ne dem nag ko jiitee fu mu limal rek mu ngi jëriñ te aaru aar na mu yiir moom dara jaan ko yàlla moo ko yëpp delloo na ko ñu ngi def fekkam lii seen nit ndax lii man maa ko war a yem waaye comme jàmm te yéen a indi te ñu ngi fekk ñu kon suñu mën a indi ñu ko pour gën a fàttali waaye nag li ko mooy gën a fàttali ci kuréel yi من الشياطين فالشكر أسمها وجعت شكري إلى الرحمن المالك الرحيم ذي الأزمان كرمني في موضعي وبلدي مكرم بالأمن سفخ